Euh, Souka mhm. euh, jërëjëf euh, masala comme nuñ ko tàmmee di defee rek à chaque fois waaye nag korom keroog wax naa ko fii nee nañu léegi méthode bi dafa changé képp koo xam ne rek bëgg nga ñu tegal la sa question bi nga xamante ne nii lu la xaw a réer la wala lu la xaw a jaxase si wàllu diine ji oustaz moo ngi fi uniquement pour di ko tontu ay vidéo nag ngay def soo ko defee ba noppi nga envoyé ko via whatsapp si 77 272 55 59 77 272 55 59 balaa nag ñuy dem te régie di jëli suñu question yooyu nga xamante ne nii Eh, ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel posé ñu am nañ fi benn question boo xamante ni ni ñu ngi nuyu son bu bàyyi woon na ko fii te aussi ñuy nuyu waale Assane Mesere bu baax a baax mu euh, ñu am benn question boo xam ne daf daf waa ji def ne daf ko jaaxal parce que le fait balaa ñuy dem di jëli question yi tout à l'heure comme ça ñi ñuy bàyyi xel ñu xam ne dinañ ñëw ci seen i seen question nee na euh, dafa gis ni à chaque fois euh, ah, diine <laughs> Assane waa dafa moo ko laaj oustaz yóbbante la te yóbbante àq la xam mu ne oustaz dafa gis ni léegi dañu diine dafa aaye d'habitude góor ak jigéen di joxante loxo lu dul sa soxna wala ku nga xamante ne nii leer na ne ni yow mënuloo ko takk te mu gis ni accolade nit ñi ñi ngi koy def te ba déggul ba tey ñu wax si dara mu ni woon naa la wax pour nga leeral ko ci loolu ci question boobu. mu laaj macha allah. Euh, waaye nag am na solo de. xaw ma ndax bàyyi ngeen xel li ma jigéen laaj wala déet. Euh, question bu am solo la. ndax ñëpp ànd nañu d'accord ni jox liggéey jox jigéen loxo dafa araam. Hmm. bu sa soxna ku dul sa soxna maanaam sa ko armal. Hmm. Euh, sa yaay mën nga ko jox soxna sa yaay mën nga ko jox soxna. jox loxo. waaw mën nga ko jox sa loxo. sa hmm. yaay. sa rakk. sa rakk boo jigéen boo bokkal ndey ak bàyyi mën nga ko jox soxna. mën nga ko jox sa loxo maanaam képp koo xam ni képp koo xamante ni yow sariya araamal na sa diggante ak moom maanaam yow kii mënoo koo takk sariya may na la kooku nga jox ko loxo est-ce que yaa ngi dégg saa waaye képp koo xamante ni mën nga koo takk sariya araamal na nga yëkkati sa loxo jox ko ko yaa ngi may dégg kon waaw araamal na man ma jox la sama loxo. yow ma joxanteeg yow loxo. dafa araam de. ma joxanteeg ma jigéen mii loxo dafa araam de. bam bi mii ma jox ko loxo dafa araam de pourtant yaa ngi ci néegu sëy de. am nga jëkkër ba pare. mais charia nee bu ma la jox loxo. lu waral loolu. waaw parce que àdduna dafa gudd tàng ñaanu ma ko yàlla. bu demoon ba diggante boobu charia dox fa ba amatul charia nee na naa la takk. ah loolu garaaw na de. est-ce que dégg nga wax bi. moom accolade la wax. maa ngi ñëw ci accolade bi. loxo bi a wax loxo bi la njëkk a dafa jara dafa jara lijjanti de. waaw waaw jox jigéen loxo. saa bi gën a garaaw ah, lu tax ñenn ñi xam ko ba. bu ñaa waaw ji ko def. senegal moom ma jigéen boo bëggee dégg-dëgg. dégg leen neex ni ñu ko bëggee lañ koy defee. koo rob mu jox la loxo. Mm-hmm. mais dafa xaraam. koo lomb mu jox la loxo dafa xaraam. mais ñu koy jàngale ba pare di ko def. àdduna bay tukki Sénégal seen diine diine diine diine bës la. li nga li nga ma laaj nii. boo xefee bi jigéen boo ma fekkee suñu kër ma def ko. du ma sax rendre boo génnee ci mbedd bi. gis joxante loxo bi. te du charia du diine daganul. jox jigéen jo loxo joo xam ni. mais man dama gis ay ustaas yoo xam ne par exemple mën nañu jàngale lii. mais ba noppi di ko def. mais moom laa wax sax. moo tax ma ne Sénégal diine yi diine yi ndaanaan daal fi am boo bëggee dégg-dégg. ay waay waaw c'est la vérité. parce que déggoo li ma la wax damay joxe man chaque jour damay joxe exemple sam bopp mu gën a dee. ah, ah. ah yaa ngi ko dégg séeréer. non. mën na fekk sama <laughs> kër te te sukaa ma wax la leen Assane lan moo ko inspiré. waaw dama de Oustaz dama ko fekk mu taxaw. waaw Oustaz jox ma loxo te tayu ko. waaw moo tax mu ma ñëwee. voilà très bien merci beaucoup ma ko gis nga ma jigéen ni parce que dem nañu ba jàpp ni loolu nekkatul lu garaaw. Ah. boo génnee ci mbedd yi yow kon sa loxo bi nañ ko war a dagg. <laughs> déedéet egguñ ci cadre dagg. waaw non dagg kañ war nañ ci ñëw. parce que bu fekkente ni boo joxee loxo. waaw ah araam euh, na. waaw kon bu fekkee loxo boobu dafa araam. kon bu fekkee loxo dafa jàngale nga koy jàngale moom laa lay wax. waaw c'est eggale ci ni la. boo joxee nit li ci jigéen benn loxo nga fi mu toll dañuy dagg sa loxo eggul foofu. <laughs> l'essentiel l'essentiel waaw l'essentiel déet ban bàyyi xel ni. Oustaz donte la ñun faalu. Oustaz Oustaz Oustaz da ngay am bàkkaar danema hmm. Assane danema hmm. moom dañ ne ko ku joxe loxo. waaw dañ ko war a dagg. <laughs> kon léegi ban daan moo ci am. daan bi très bien. xam nga yonent bi ali no fi doy waar. mooy sunu ministres yi suñu sunu député yi. ak sunu président yi ak sunu ustaas yi. ak suñu ustaas yi. ak sunu animateurs yi. ak ñëpp. da ngay dem tukki dem beneen réew. nga gis kuy akolaat jabaru jàmbur. Hmm. akolaat jabaru jàmbur. akolaat mais tubaab bi loolu moom du dara. non tubaab la parce que moom gëmul diine. Hmm. yow mi gëm diine da ngaa tënku. léegi yow mi ko def ni akolaat jabaru jàmbur kale ko. mais dafa xaraam. mais bu sa bu oustaz comme par exemple. yow nga nekk nitu diine. waaw léegi yow sa jabar. waaw am keneen ku koy akolaat. loolu loo ko war a def. <laughs> quoi xam nga yow sa jabar am na keneen ku koy accolade. waaw te gis nga ko quoi. te yow teg nga ci sa bët. waaw moo tax ñun. ñu war a nuyoo di accolade. ñu war a ñu war a sécuriser suñuy soxna. Hmm. ci yu baree baree baree bare gis nga sa soxna. Hmm. bokk na ci yi nga ko war a digal mu dugal nga dugal ci boppam. Hmm. mu xam ni amul droit jox benn loxo góor ko dul ko dul yow. mais bu fekkee yow mi koy tere am loolu. Eh, eh, eh, yaa ngi dégg yow mi koy tere. yow mi koy tere yaa ngi koy def mu koy gis. am waaw koy def da koy def. mais li ñu war a comprendre mooy ndax def googu ku góor ki di ko def ak ku jigéen ki di ko def ndax dagan na mm-hmm. li am mooy daganul charia def ko araamal léegi mu ne accolade bi ma wax ni la yonent bi alayhi salaatu wasalaam neen nga dem ci mbaam xuux yi mm-hmm. seen place boobu ñu ne mbaam bi nga fekk leen fa ñu tëdd nga summee yow ba set yonent bi nee na nga jàpp mbaam xuux yi di jonjante ak ñoom di jaxasoo ak mbaam xuux yi di jonjante ak moom moo gën fuuf nga gën sa loxo jox ko jigéen. ah te ko def ilaaha illallaah. est-ce que sa loxo boobu bu ma ko tàllal la. est dégg. <laughs> énoo sax. lu tax du ma la ko tàllal bul ma la ko li àtte bi ci ne rek. yeneen nga a jox ko loxo. seen loxo loxo yii dimbali leen déglu nag moox la <laughs> li tax jàngale bi am solo mooy loolu léegi oustaz loolu mun mun ngeen ko tuub par exemple ma jël misaal ci yéen yéen ñu joxante loxo tey waaw a tuub la kon dañ jàpp ni léegi tuub la pour ñu ñuy seetaat moom mooy nga rëccu ni bàkkaar bii ma def dootuma delluwaat ci defaat di joxewaat ci loxo mais bam bi boo ñëwaatee di ko nuyuwaat beneen ah, yoon newul foofu hmm. dañ koo def aada li ma lay wax nii bari na imaamu raatib yoo xam ne ñu ngi nekk ci koñ ñoom imaam. quartier dañuy jox loxo jigéen. waaw comme yow rek ni nga def tout à l'heure comme man ni ma def tout à <laughs> suba saa ñëw mën na ko def. Eh, eh, bu ma ko waxaat de. dañuy waxtaan rek loxo yooyu yaa ngi may dégg dañuy waxtaan rek xam nga xam nga lu gën a neex ci xel rek xam nga lu gën a neex ci diin même bu yet bi dalee sa kaw. da ngaa war a dëgg xam nga lii mënoon nañu ko bañ a indi fii ci table ji. la mais pour jàngale. dëgg la pour wane ni ma fii nii jommet. dañ ñun suñuy biir sax ay actes yi ñuy def dañ koy teg ci table ji. Mm-hmm. pour jàngale la. dëgg la jox na ma loxo du inta bi garaaw xam nga mooy lan sax. moo la jox wala yaa ko jox. man ko jox xaw ma ma jox. wala ma jox loxo mais kaay ma wax la bu yàq léegi kaay ma wax la bu garaaw yow. yow su ko ah. léegi jàpp nga ba pare. waaw jàpp nga. ma ñëw nuyu la. jullee de. Mm-hmm. nga jékki-jékki nuyu ma. danga may nuyu. dégguloo ñeenti façon ci am nag saa. Hmm. bi nga ma nuyoo rek yow bàyyi woo ci xel de nuyu gi ma la nuyu rek man yëg naa ci plaisir. mujj hmm. sama jàpp toj na. Hmm. waaw am na loolu mën na damay jàppaat boo xemee jig. waaw parce que jubluwoo ko ci. ba ba def naa plaisir maanaam yëg nga ci bànneex rek. daf ma nuyu moom jàpp naa ba pare. waa léegi lu toj jàpp foofu. Mm, dégg plaisir bi ma yëg man. Eh. te su quoi yëg ma yëg oustaz kon day toj jàpp. dafay toj njàpp. léegi bu dee ndaw si daf laa romb bu dee kiiw la. mais romb na rek am nga ci yëg-yëg. waaw waaye njàpp la toj na. loxo laa lay wax loxo bi laa lay wax. waaw donc c'est que dama ne. bu dee yëg-yëg. waaw ci dimension bi mu nekk. dafa nekk ci waaw yëpp jàpp lii moo koy toj ak. waaw ngelaw ak nelaw boo ci bëggee dugal yëg-yëg day xaw ak doy ma la. li ma la wax de. parce que Abdourahmane jàngale laay wax. waaw Abdourahmane li wax. waaw jàpp naa ba pare. ma ñëw jox la loxo Souka Mbaye ñeent xam nga saal tax mu gën condition moo ci ne moom laa la bëgg a leeral. Mm-hmm. Souka ni ma saraax jox ma loxo man. waaw yooyu ko man dem sama yoon ma jóguma la xew. Mm-hmm. su ko yëgul lu xew mais man am naa ci plaisir. man mi jàppoon ba pare. waaw sama jàpp bi toj na. kon léegi njàpp ko jàpp lam yëg la di bu dee jox bu dee bi moo ko toj nga dama jox loxo boo demee yëg yëg sentir lu mu yëg. waaw jox loxo bi laa la yëg yëg. waaw léeg-léeg déglu ma oustaz. mën ngay jekki-jekki nga nga jàpp ba pare. way laa sax ngay julli am na nu as ndaw di rombee. sa kanam yooyu yëpp nga am yëg-yëg. loolu yëg-yëg la loolu taxul njàpp nga yàq. ah loolu taxul njàpp nga ah, yàq. lu tax kon léegi yëg-yëg bi fii njàpp nga di toj. da koo jox loxo. ba pare am lu mu ci boppam. yaa ngi dégg déggoo ma la danger bi fi mu ne mooy su jox ma loxo bàyyiwu ci xel. waaw man am na lu ma yëg. léegi beneen mooy su ko moom jàpp na ba pare jox ma loxo amu ci woon intention far fi ma joxee loxo rek moom mu am lu mu ci yëg moom foofu tamit sama jàpp toj. sa jàpp toj. mais oustaz lan moo tax charia ne da ngay jàppaat da ngay non jàpp rek ngay ngay jàppaat rek. oustaz lan moo tax oustaz lan tax charia ne nelaw boo nga boo jàppee. waaw charia mu ne boo jàpp gis nga yëg-yëg bu sew lu sew la saa. bu ñoom dañ ca amee ah. waaw charia daf ne boo jàppee nga ngalawal. sa jàpp toj na. waaw nga nelaw. sa njàpp ta toj na parce que si nelaw gi xamoo ndax ngelawal nga wala ngelawaloo waaw donc kon man mii tey xaw moo ne tamit boo nuyoo nit ci kaw njàpp nga nga am loo yëg loolu tamit day mm-hmm. loolu lu ñu war a xam la waaw léegi lu tax loolu man boolewuñ ko ci ponk yi toj njàpp bokk na ci bokk na ci ko ah, dégg bokk na ci li ah, toj njàpp ah, eh, sa njàpp toj njàpp yow yow bu at moom sax amoo ci njàpp xam nga. xam nga jàpp nga jàpp yow at moom boo jàppee doo ci ne nuyu kay toj nañ jàpp kay a jaaxal déedéet <laughs> bi nga xam ne yéen ñaar ñëpp kenn du ci am kenn du ci jàpp. bi nga xam ni que moo xam ne yën ñaar ñëpp kenn du ci jàpp te loolu lu gaaw la. mooy jàpp gi am na ba pare maa ngi jàpp yaa ngeen jàpp. nga nuyu ma rek maa yow kenn yëgu ci tous. boobu tamit da ngay jàppale. déedéet parce que kenn yëgu ko ci. Ah, moo tax man la lii la jàppante bi ba nga am loo ci yëg rek su yéeg-yéeg amee rek ñun ñaar ñëpp suñu jàpp yàqu na yooyu ay sew-sew la yoo xam ne saa question bi fi soñ bu woon ban question la waaw question bi ni xam naa bu soñ bu ñëwoon ci lay gën a leerati waaye li leer ba leer daal ko man na jàppatuma ko mhm. mais li leer ba leer daal mooy mhm. euh, damay bañ a réer. est-ce bàyyi ba. waaw mais nañ bàyyi ba soñ bu ñëwee rek nañ moom bu ñëwee dina ko dina ko gën a mën a leeral ak Modou Diouf ak Abdou Top ñu tegal ñu question bu njëkk waaw mel ni amoon nañ fi ay laaj laaj bi ci jëkk mooy boo fekkee ñuy julli tàkkusaan nga ànd ci julli tàkkusaan gi dem ba julli ñaari raaka fàttaliku ne yow kat jullee goo woon tisbaar dangay dagg julli gi wala dangay ànd ak ñoom ba noppi julli tisbaar doo ko baamtuwaat tàkkusaan wala dangay dagg julli gi julli tisbaar doo julli tàkkusaan beneen bi tamit ñuy laaj ulul mi maanaam ñaata lañ ak ñoom nuñ tudd ulul azmi waaw ñooñu moom ñu ngi koy laaj waaw beneen bi tamit ñuy laaj euh, fukk yi nga xam ne si maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daleen a garanteeloon àjjana ñuy laaj ndax bi leen koy garanteel fekk na ñoom ñi ngi dund wala booba génn nañ àdduna fukk yooyu tamit buñ sañan xam ñooy ñooñu ñan la bi ci des tamit ñuy laaj rafet rafeti gaa yu baax yi mooy ñaaw ñaaw yi ñu jege yàlla ñu bëggan cig leeral ndax def noo xaw a lënt turab tuuti waaw rafet rafetu gaa yu baax yi mooy ñaaw ñaaw yi ñu jege yàlla xasanaatul abraaru sayiaatul muxarrabiina buñ sañan tamit am ci ak leeral bu ngeen buñ ñu ko mënee leeralal ustaas kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp taw ak taysiir tey kii ko ah oustaz la baax kii yor xalimaam kii kii li muy xam na ko léegi nag yow lay xool. li mu jógee dafa laaj ñetti question waaw mais fi mu doon nag il faut faire très attention. dafa laaj ñetti question dafa sew nag. maa ngi ko mhm. euh, bi njëkk mooy li mu laaj. waaw ñetti question la laaj. waaw bi njëkk li mu laaj euh, ma jigéen. Mhm. dafa laaj ni kii doon julli tàkkusaan maanaam dafa ñëw fekk mbooloo. waaw ñuy julli tàkkusaan ñuy julli. waaw moom nekk de julliwul tisbaar. Mhm. bi mu amee ba am bi mu jullee ci tàkkusaan beeg ñoom ba am ñaari ràkka fu sew nag la ñu ne muy mm-hmm. julli mm-hmm. dafa sew xóot ba di détail bari problème mm-hmm. léegi foofu dafa am ñaari ràkka ak mbooloo mi koo giite moom dafa am ñaari ràkka ak mbooloo su boobaa charia nee na ko mm. normal julli gi ànd ak ñoom mm. yaa ngi dégg baax li ma lay wax day normal julli gi ànd ak ñoom mm. bu sëlmalee nag day julli tisbaar bi daal di julliwaat tàkkusaan bi yaa ngi may dégg bu baax a baax kon ñaari ràkk la ci am waaw yëg ni moom julliwul tisbaar da koy continuer day ànd ak ñoom wormaal wormaal julli gi bu paree fay tisbaar dooru julliwaat tàkkusaan mm. léegi ma defal ko ci benn buuñaa xam nga mooy lan buuñaa su fekkente ni dafa julli bu julli gi jeex moom waaw julli na ba julli gi jeex. waaw julli na ba julli gi jeex. xelam door a dem ci moom julliwul woon tisbaar ci saa si day julli tisbaar rek pare ci. dootul julliwaat tàkk dootul dootul julli dootul julliwaat tàkkusaan gi dégg nga wax gi foofu daal di leer beneen bi mu laaj al ashru al mubashirina bil na mooy loolu ngeen doon riim mu muy riim noonu mooy fukk yi nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni fukki yooyu ñoom aljana la ñu jëm direct bam bi fukki yi ku ci déggul sa tur da ngaa war a jaamu yàlla dëgg la ñoom yonent bi da leen a garanti ne ñoom aljana lañ jëm ci dund gi mm-hmm. ku ci njëkk ubaydatu ibnu jaraax la deuxièmement bi ku ñu wax talaatu troisièmement bi ku ñu wax zubayru la quatrièmement bi ku ñu wax abdurahmaan ibnu awf la cinquièmement bi ku ñu wax saad ibnu abi waqaas la sixièmement bi ku ñu wax saïd la septièmement bi ku ñu wax abou bakar la huitième bi ku ñu wax omar Ousmane Ali muy fukk yi nga xam ni al ashra al mubashirina bil janna yonent bi nee na leen yéen ñi moom neex naqari direct ba aljana ngeen jëm ñooñu rek la yonent bi koseel jox leen carte ni leen yéen aljana ngeen jëm dul ñooñu ci ñun jaamu yàlla si mbirum julli boobu sax nag laa bëgg nga ñëw parce que dafa am ku ma yóbbante ne na xam mhm. euh, ñi nga xam ne dañu génn àdduna imaam bi ñëw si si si kii bi barab bi ñu ko war a jullee mhm. nee na muy julli ba si yàgg mu sentir que ne def na erreur juum na mhm. mu ni nee na ndax euh, naka la war a def dafa war a arrêter commencer waat puisque dañuy jullee ab néew bu ñu war a dem denc ji wala euh, nan lay def daal tabaarkalla muy question bu am sens importance loolu nit ñu war koo xam parce que euh, jullee néew dañ ko war a bàyyi xel lool moo tax xuloog sa imaam wóorul bambi xuloog sa imaam bi nga dëkkal wóorul parce que li garaaw mooy moom suy jullee du wax ci kaw ndànk lay wax boo nekkoon ci koñ mi nag bañ inaan imaam daan jéppi imaam wala ngay xeex imaam wala ngay wax lu bon imaam mën nañ ñëw ba tiim la ni yàlla kii nii moo gën a bon ci carte bi. mais dama lay wax rek li tax déggoog imaam baax. foofu laa wax. ak di gëstu sa imaam xam sa imaam. chef de parti bi ni nga koy lijjantee. chef de parti bi ni nga koy lijjantee imaam naa ñëw ba yegg ah, lu garaaw laa lay wax de. moo gën a bon ci quartier bi. ah yow xam nga lu imaam di wax nga nekk ci imaam yor jàpp sa làmmiñ wi foo toll di xas imaam. di wax imaam lu bon. di yàq deram te imaam mooy imaam ratib ah, bu imaam doxalut yoon. ah imaam bu doxal loolu yàlla moom xam na dañ ko merci beaucoup waaw te ba pare dañ koy teg ci yoon waaw hmm. léegi loolu tax ñu naan la jubóog sa imaam daa baax tamit yàlla moo ne boo tegee néew ci jaaj même boo xamee lu léegi li am solo mooy xam nga yow oustaz ah. li mu wax nii mën nañ di xel ci am ñoo xam ne <laughs> dinañ tegaat seen kii daan ne est-ce que sama diw sàngam bi muy génn àddina est-ce que imaam bi ko jiite kon waxut li nga ne imaam mën na wax la léegi <laughs> li nga wax ne moom la imaam mën a wax non sa nga dama la saa waaw jubóog say maam na wax lan jubóog maam loo am solo la waaw boo nekkee ci koñ bi am ñoo xam ni dañuy toog ak imam ñoom jànguñu jàngaanuñu xamuñu sax lu jëm ci mbiru jàkka waaw mais foo leen fekk yàq deru imam mooy seen métier dingat imam waaw dingat ba xam saa day am am commission yi lu ne nga wax ko imam yow imam moom ñu xëy xëy xëy mu war laa jullee mhm. loo xam lu muy wax mhm. lan nga xam lu muy wax ak yàlla te foofu imam bi wax du wax ci kaw mhm. ñeenti kàbbar rek la ñuy kàbbar dóor ko sa kaw day miime ñeenti kàbbar tey maam day miime mhm. julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. lu mu gudd gudd gudd bu gàtte ba gàtt mhm. li ñu lay wax mooy yàlla bu dee góor la nga def nga def salaatu ala nabi allahumma ighfir lahu warhamhu am na ñaan gu gudd gudd nag dafa gudd bu fekkente ni jigéen la allahumma war laha warhamha ginnaaw bi nga defee salaatu ala faatiha ak salaatu ala nabi ci moom ba pare daal di ñaan ñaan yàlla mu jéggal ko nga yóbbu ko ñu war koo denc ba pare ni ñuy dencee néew ñu bare bare bari saa war nañ ko xam. Mm. Mm, bari nañu waaw bu ñuy denc néew. Mm-hmm. njaboot yi nañu góor góorlu bopp néew bi. dañ ci jàng yaasin. yaasin tànk ba. Mm. ñu jàng ci suuratul mulk. mooy tabaaraka alladi bi yadil mulk. digg bi nangeen fexe ba njaboot gi naam ku mokkali sur isa waqaati waaqaa mu jàng ko fa ñu door a def ñaan gi. moom la kii di wax chaque jour nee na SMS nee ñaan gi day gaaw lool waaye gars yi dañuy farax faraxee ñaan gi parce que parce que nii dañ naan bu ayoo fukki bi bis fukki bis bismillah ak ak mais man euh, balaa ngay matal benn sax gars yi def pare nañ ah, waaw mais mu ngi ko c'est tamit nit ñuy taf tafee tamit mbir yi lan moo tax mais loolu est-ce que oustaz yow yaakaaroo ni foofu tamit ñi nga xamante ne bi ñoo yor encadrement lu jëm ci wàllu ñaan yeeg yooyu war nañoo gën a ànd ak dal mais dafa mel ni dañuy yàkkamte génn armée bi parax parax xam nga lu ma lay conseillé saa waaw géema la fexe nu ñuy jàngee nu ñuy sangee néew kan moom saa moom saa <laughs> ah waaw non <laughs> conseil non dama koy conseil conseil la wala saa da ngaa ragal sang néew non am nañu ko ñemewul ah? dañ <laughs> ah. boo ko jàngee pour saa lan moo tax nit ñi buñ suulijee ba ñëw ñu ne la waroo gees yëpp ay aada la rek. aada la rek loolu parce que dañ lay woo nee na ki ci suuf xam nga ndax moolo ko xam nga ndax moolo ko saa. waaw li gën a doy waar xam nga saa bu ñu ci ñaan ga. waaw bu ñu demee ci armeel ya. leer na ko ni moom saa. fi gars yi waxee ñeent fukki lixlaas ak benn. xaju fa cinq minutes la. xaju fa c'est-à-dire ñeent fukki lixlaas ak benn maximum. waaw war nga koo jàng ci douze minutes. Oh. bu dee sell. waaw fukki ñeent fukki lixlaas ak benn. waaw bu dee sell na. teg te mu gaaw na. gars yi dañ koy far war nga koo jàng ci douze minutes. waaw maximum quinze minutes. yaa ngi dégg. mais sa néew. yaa ko moomal sa bopp. sangal ko sa bopp. Hmm. mais ñi nga xam ne sang néew rek mooy seen métier a dindi métier moom nga bëgg a ah, éliminer. ah, ah parce na ñoo xam ne saa ku ci am sa papa mu génn àdduna. jàngil ni ñu koy sangee nga sangal ko sa bopp. te am na loolu sa yaay. Mm-hmm. seetal bu baax toppal ñu koy sang ni ñu koy sangee. say sœur bu ñu fa nekkee fexeel ba jàngal leen ko ñu ñëw tiim sa yaay defar sa yaay. jamono ji moo rëpp te nit ñi ni ñuy sangee baaxul. mais ah, parce que léegi parce que man sinab yi ñuy sinab ak ay kii yàlla bu mu yegg ci morgue yi. yal nañu ci yàlla ah, mos a. attention parce que non su fekkee léegi. comme ni nga wax ñu ngi dugg ci duus di sinab. waaw dëgg la de ñaa ah, ngi dugg ci duus di sinab léegi di ko wane. di wane kii dugg ci duus. dëgg la de xam nga ni morgue ci des. ci kanam tuuti yëpp mais oustaz mais oustaz imaginel tey am na ñoo xam ni li nga wax léegi ni eh, ku boo ci bu ñu suulee nit. boo kenn ki dafa eh, dafa am koo xam dafa war a nekk ci bopp bi. mu am mu wax fa yaasin. ñëw ci tànk bi am lu mu wax. mais am na ñoo xam ne mënuñu ko. waaw moo tax man njaboot gi. xam nga li gën a doy waar xam nga li gën a doy waar maximum famille bi waaw parce que ñoo lay denc nag de ak une cas boo amee say mbokk bañ leen nag faale woo leen respecté woo leen mais tamit bu tee nga def li nga war a def na oustaz. waaw waaw nga yërëm ko def ko ñu yéen ko ñu ko ñaanal ko. loo lu bon loo ko xamal nga bañ koo wax. yonent bi xam nga lu mu wax xam nga lu yonent bi wax. xam nga da ngay gis naan day ñaan noppi leen di ma ngay dégg ku dee ah. waaw ku génnaat soo ñëwee. am naa question de ci kër gi yeneen bi nee na uzukuru mahasina mawteekum. waaw baam bi nañu jëli question bi après su ñëwee. yu rafet dee leen tudd yu rafet yi ngeen xam ci seen néew yi. uzukuru mahasina mawteekum. dee leen tudd yu rafet yu sell yi ngeen xam ci seen néew rek àndaat ak Abdou Top ak Modou Diouf. dafa am benn question bu ma bu ma laaj euh, oustaz. mooy ko xamante ne tey jii nii daa nekkoon jullit far nag tuub doon catholique bu naree ñëwaat encore pour doonaat jullit nak lay def ba xam ndax loolu sax est-ce que yoon maye na ko walla ak bu naree doonaat jullit naka lay def. Mm-hmm. <laughs> tub bi tuubaat loolu de la wax. Sénégal nag problème bi mooy atte charia doxu fi. Mm. atte charia doxu fi saa. waaye képp koo xam ni fës na ci yow ni jullit nga. nga xëy suba teel ni bàyyi naa jullit gi léegi yéeféer la charia nee na nañ la may trois jours boo tuubul ci li nga wax nañu la rendi xam nga loolu dafa leer sax képp koo xam ni jullit nga ñépp xam na ci jullit nga waaw nga mel ni rek benn Ablaye Ndiaye sama doom di jaay la mu ci ca Louga mhm. xëy xëy rek daal ni carrément moom nekkatul jullit léegi yéeféer la charia ne nañ ko may trois jours bu dee li muy wax nii kafu ci dëgg la ci moom trois jours yi bu mate dañ ko bu fekkonte ne Sénégal am na jaasi l'islam malheureusement amul jaasi l'islam waaye suñu borom li mu wax dafa leer inna alladina kafaru min baadi imanihum suma daadu kufran lam tuqbalallahu tawbatan ulaayka humu daaluun yàlla ne na ñi nga xamante ni dañoo gëm ba pare wecci seen ngëm weddi yàlla insiste ci nag ni carrément weddi nag ëllëg bu ñu tuubee sax yàlla du leen ko nangu nangu yàlla teg ci nag ñooñu nag ñooy woy torox yi mais oustaz kii waxul dafa tuub pour doon yéefar mais dafa tuub dugg ci beneen religion religion tourné waat dellu si hmm. dellu si gi nag laay laay doo li ma déparé nii mooy loolu laa la ciy leeral dellu si waat dugg ci diine ba pare génn dem mere di ko yàllay mere léegi dellu si léegi nag dellu si nga waaw ah. suñu borom da lay recevoir lislaam da recevoir bari naa nag aaya yoo xam ne yàlla wane na meram comme lu mel ni yàlla fi muy waxee allah waliyu ladina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur waaye nag walladina kafaru awliyaahum taaxut yuxrijunahum min nuuri ila zulumati ulaayka asaabu naar hum fiha xaalidoon yàlla nee na ñi nga xamante ni dañoo baax yiw yàlla nee na man de may seen kilifa maa leen di fekk ci lëndëm lëndëm génne leen fi yóbbu leen ci leer waaye nag yàlla neen ñi nga xam dañoo bon yàlla neen du ñu baax ba yowmal xiyaam dinaa dinaa kay seen njiit di seen kilifa di iblis moo leen di fekk ci lu baax ci lumière bi jël leen yóbbu leen ci lëndëm lëndëm ga yàlla nag nee na ñoo ñooy kër waa safara te yàlla nee na bu ñu dee fa la ñuy sax loolu nag li muy tekki mooy def lu baax moo gën ànd ci lu baax euh, ma jigéen moo gën topp yàlla doon jullit yàlla nee na ragal leen ma na ngeen fexe ba bu ngeen di dee na ngeen dee ci imaanu billah wala tamutunna illa wa antum muslimun oustaz kii euh, benn soxna la mm-hmm. mm-hmm. mu oo xaritam bu jigéen bu mm-hmm. woo ci biir néegam ne ko damaa war a génn am rendez-vous ak beneen góor ndax sama jëkkër daf maa musa trompé ba bett ko kon man tamit damay fayu ku jigéen ki moo wax loolu moromam moromam it manquant mel ni moom na ko waawoo door fayu comme ñun duñ duñ ñu mun a duñ ñu muñal ñun tam bu ñu leen muñal mm. mu ne ko léegi bu sama jëkkër comme dafay teel a nelaw bu tëddee nelaw rek man dinaa la jox même nuisette bi may am danaa ko sol ba mu gis ko xam ne li laa war a tëddee mm. yow di nga jël nuisette boobu sol ko tëdd ci wetam mm. ndaw si dégg ndigalu xaritam guddi gi jot ndaw si jabar waa ji sol na nuisette ba pare ba tëdd ba waa ji gis na jabaram mi ngi ni tëdd ci wetam sol na nuisette am ba xam ne li mu sol waa ji nelaw bi waa ji nelawee ndaw si génn na ak beneen oto ku mu amal rendez dem xarit bi tëdd place su xaritam sol même nuisette bi ba ñu séq ko ba mu ànd ak xaritu jëkkër ji sëy léegi bi mu àndee xaritu jëkkër ji sëy moom ndaw si tamit ànd na ak beneen waay ci oto ba dem sëy jee kooku may laajte ndax yar bi dina dal xarit bi nangu loolu rek tamit wala ki sëy def loolu kese la chariatul islamiyya di daan ak waa ji nga xam ne moom aussi yëgul plan bi ko jabaram def ba mu sëy ak xaritu jabaram foofu moom tamit lan la ko ci charia wax ndax dakay bàyyi mu sedd mu continuer sëyam wala dafa am leneen lu nga xamante ne que si borom subhanahu wa taala mu ko mën nga calculer waale ci amitié ñetti kii la waa ñetti kii ñetti laaj laaj nga laaj li muy li muy indi tey calculer waale ci ne laaj laaj nga laaj amitié moo ci ne bam bi indi na <laughs> nee na amitié question bu doy waar la la boo xam bu lëj la mm-hmm, laaj la poqet bu lëj la boo ko fàtte <laughs> waaw du ma ko fàtte xaritoo xale kenn du ko dagg xaritoo xale bu jigéen bi waaw poqet bu lëj la waaye chariatul islam moom loo danse danse danse boo ñëwee fi nga koy fekk. dëgg la mm. l'islam loo bandi bandi bandi bandi bandilu boo ñëwee fekk lislaam moom toog na yore na jaaseem mm-hmm. jaasi l'islam nag moo dugg ci kër gi nga may nettali tey mm-hmm. fi may njëkkee mooy moom xale bu góor bi nga xam ni mm-hmm. xaritu jabaram jël na habillement wu jabaram sol ko. mais kooku yëgul de. yëgul de falaa jëm parce que moom falaa jëm. falaa jëm xamul affaire yi nu mu demee te moom dina jabaram ba mu fay. xamul nu mu demee. falaa jëm alaaji nag war na xam ne demee sa jabar. sa jabar nga yàgg ak moom. lu mu lënd ma jigéen loolu xamoo ci lu bari. nga mën a xam ni kii sa jabar kii sa jabar. yow su waayoo jabar noo koy xamee. mais non mën nga jabar am nga par point. waaye Saal waay Saal waay dara leeru ko. non côté boobu la. yow li xamoo ci dara déglu ma kooku. man na ma may ma ku góor ki moo trompé dañ ko pièce dafa yéeg. sa jabar xamut. sa jabar jamono jooju mais mooy ma jigéen jamono jooju xanaa am ma jigéen dafa am loo xam ne a ma jigéen dafa am foo xam ni bu fa góor tollee oustaz yow góor nga am na foo xam ne bu loo xam ne boo demee ba ci biir di nga xam ne kii du moom déglu ma rek am na foo xam ne góor tollee ay feemu ci sax feemu jabar ay yëg-yëg yoo xam ni xel ma dem na wala déedéet xam nga lool moo tax ñu lay wax ne la sa aaya boobu nga naan boo tollee ci diggante sàngam ma ngi koy tari. ñi ko moo mokkal bariwuñ. Eh, dëgg la dëgg. yaa ngi dégg kon fii nga xam ne mooy point bii kii wax. waa ji mën naa nekk ci njuumte. astafurlah waa léegi. tey ko waa ji dafa juum léegi ah. hmm. ñaara am. ci waa ji. tey ko. su fekkee ne waa ji moo ko tey. non nu mu koy tayee ba ma ñëw ci xam tayee parce que ñoom ne su kaa nee na ko sa xeetu jabar da nga koy xam. jigéen ñi moom mën su fekkee xam na ko moom waa ji hmm. charia dal na ci kawam. waaw bu dee xamu ko bu dee xam na ko léegi ma ñëw ci xamu ko. waaw ñëwal ci xamu su dee xamu ko. waaw su dee xamu ko. amu ci benn bàkkaar. ñu déglu ma. su fekkee ni xamu ko laa xamu ko jàpp na ni ki mu tëddal nii ba séyeg moom. jabaram la jabaram la ko teg. kooku amul bàkkaar. waaye non de xam nga loolu après dañ ñëw man damay wax li mu ci wax ba pare. après ñu door a indi suñu xalaat. Mm-hmm. su fekkee xamu ko laa wax. charia mm-hmm. du la topp ci loo xamul. nu mu koy toppee. lépp loo xam ne xamoo ko charia du la jox mais su fekkente ne dem na ba ci biir mu yëg ni kii du jabar. ah man bu ko yëgee am na fu ko yëgee. attention déglu ma am na fu ko yëgee mënu ci dara. déglu ma rek ah am na fu mu koy yëgee. waaw ci man dara nga fa mu koy yëgee fu mu mën a doon. ah ça dépend. dem na ba saa déglu ma rek ah, déglu ma saa. non non non non saa déglu ma parce que fii nga nekk. fii déglu am na fu mu koy yëgee. mënatul a téem. mënatul boppam. même bu mënatul loolu ngay dugal. même da ngay dugal. da ngay dugal kii boppam saa. même bu mënul loolu boppam. lu muy def dem na ba toll ci dimension boobu. mu yëg ni kii du jabaram. waaw lu mu ca dolli waat. déedéet waaw waaw mu koy. yaa ngi may dégg bu baax ah. ba jigéen. saas dem kii nag du jabaram. Ah. lu mu ca dolli waat rek rey na. déedéet déedéet foofu. ak lu mu sori ak lu mu sori sori. Ah. non non fii yëgul oustaz déglu ma amul bàkkaar oustaz déglu ma nag oustaz déglu ma non déglu ma oustaz li ma wax am na fu muy toll waaw même bu retrouver ne kii jabaram waaw bu boobaa mënatu la contrôler boppam parce que les émotions yeeg yi xam nga mu sa lan moo tax nga bandi yow affaire bandi lu mu neex la man loolu ma neex ci sa lu tax mu neex la yow lu tax rek kuutoo ko nga bëgg waa ji bu fa eggee rek moom normalement daal moom amul tulatee boppam. day koo teg loolu yow. lu tax saar boobu ñu bari mokkaluñ ko. <laughs> saar la mooy bi ñu war a tari xaw ma si diggante xaw ma. non loolu dafa leer saa ah. wax naa ko waxate ko fi. Ah. dee leen jàng allahumma jannib nii mina shaytaan. yow ñaar kañ nga ko gën a jàng allahumma jannib nii. na ko ñëpp jàng. léegi ma ne ndax sa loxo. saa wax naa la ko ni la. Ah. sa loxo ngay yëkkati. jàng ko ci teg ko ci sa bopp soxna. moom it mu yëkkati ko teg ko ci sa bopp. ngeen ànd dem seen kaw la. ah, ah. ah? mu wax ko nga topp nga répété ko. Ah, wax ko baat ak baat. am na foo xam ne boo fa tolloo doo paree nga jàng ko. ñu jóge foofu. ndax question bi dafa xaw a xóot. Mm-hmm. beneen bi mooy. xale bu jigéen bi nga xam ne. sa temps de parole jeex na nag. waaw xale bu jigéen bi nga xam ne. jóge na fa. daal di fay jaare moom uti beneen far. dem sëy ak moom am na jëkkër njaaloo kii jëkkëram njaaloo woon na ba tax na nee na day fayu moom dafay am ñoom ñaar ñëpp sariya rey na dañ mhm. leen di ñaar ñëpp léegi mu des xale bu jigéen bii xaritam mhm. bu fekkee amul jëkkër mhm. ndax Sénégal moom toj na loo ci mën a dégg moom jamono juñ tool ku am sa jabar moom bee ba nga xool bu baax ku am sa jëkkër it bee ba nga xool bu baax toj na xale bu jigéen bu fekkeen teni laa ni amul jëkkër jeex na oustaz bu boobaa yar yoon lañ koy dóor téeméer yar lañ koy dóor ndax dafa njaaloo su dee am na jëkkër rek lañ koy rey macha ah, ah, allah